assalamu alaykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi nuyu njiitu kër gi laaj bu di ko ñaanal di ñaanal jabotam di nuyu personnel bi nga xam ñoo boot ginnaaw di nuyu Sénégal yëpp ñu ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye soxna Rama si la si Pikine soxna gañ si ñu koy ziar bu baax a baax a baax ba fem si kër ngi nuyu personne bi motu si ginnaaw gan ba ñuy avancé nañ del suwaat nuyuwaat pap mbub di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér muy maire xombal moom pap mbub ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaay may ko wér ba mu delluwaat si liggéeyam lii nga xam ne sumboon na ko mën ko àggale si jàmm ñu ngi nuyu aussi suñu sëriñ muy muhammad Jamil si di doomum si sëñ Mansour si moom mi nga xam ni defe naa ne dafa dégg suñu suñu suñu suñu mbébét ndax junjoon nañ fi ne xombal amatul tali bu baax doon ñaan nguur gi am si taxawaay mais tey dafa mel si nopp kooku di suñu faa si jamil la la daanu ndax tey tali xombal yëpp mi ngi koy defaraat fi ne ñu ngi koy sant vraiment barki démb bu xombal laa yendu mais sama xol dafa sedd kon yàlla na yàlla gën a dog dëgëral taxawaayam gën ko may wér ak kàttan yokk ay xéwalam euh, tey dañu ñëw si émission bu am solo muy wàllu persil persil nag dafa nekk loo xamante ni dafa naan loo si wax rek du doy moom persil xam nga plante moom muy garab bu ñu ne am na vitamine A kon képp ku am jafe bët maanaam sa gis-gis dese yàlla mën na dimbali ndax dafa bari vitamine A dafa am vitamine E moo tax mu baax si lépp luy laal der der doomu aadama na ñëw si léegi si kon képp bëgg sa der di dund na ngay utiliser lu bari dafa am vitamine C tax na mu baax day fortifier day dëgëral nit day dëgëral ay yaax dëgëral organisme nit day tax boo koy jël doo gaaw a son dafa am fer moo tax muy faj anémie dafa am fer garab gu riche la en fer kon ñeent fer ñeent yooyu rek tax na ñu war jël persil yokk si nag ni am na magnésium am na manganèse am na cuivre am na zinc aussi moo tax ñu koy digal léeg-léeg ñi am problème mu mauvaise haleine boo amee gémmiñ gi sëlëf sooy wax sa gémmiñ ji génn xel ñu la ana wutal persil di ko infusion di ko naan ndax zinc boobu mu am te boo manqué zinc des fois dafay indi loolu ñuy wax halitose muy mauvaise haleine gémmiñ gi sëlëf kon lu am solo la. baax na si xale yi nga xam ne dañ tollu si màgg aussi bu ñu ko dee jël dafa dafay yokk seen développement dafay defaraat les tissus day yeesal organisme nit muy yaramu nit donc loolu lu mat a bàyyi bàyyi xel la boo amee hypertension ni nga koy jëlee yomb na. lii day bari mais da si wut sa ngëbu loxo ba fees moom persil bi su ko defee nga haché ko def si litre ndox bu tàng bàyyi bam sedd nga koy jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo si kàttanu yàlla dafay wàcce tension. boo amee cholestérol bu yéeg muy diw bu mboq bu bon boobu boo ko day jël dafay dimbali da koy wàcce muy moomee cholestérol bi LDL bi da koy wàcce bu baax a baax a baax soo amee li ñuy wax. suukar bu yéeg mën ngay jël persi moo baa na koy booleeg laaj da ngay jël sa loxo ba mu fees nga jël juróomi doomu laaj daggate ko mu sew def ko si tàngal ko ba mu tàng bàyyi mu seet nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo aña boole daf lay dimbali ba soo amoon pël mu mu wàcc kon persi dina wàcce suukar dina wàcce tension day raxas cholestérol muy diw bon boobu si yaramu doomu doomu adama dafay rafetal der su boobaa nag da ngay toll toll cinquante grammes si xobu perse bi nga baxal ko ba mu ñor nga def ko ritale ko mu nekk pat nga diw ko sa yaram xaar lu bon bon fanweeri minute soo ko sangu soo ko dee faral def si kàttanu yàlla dafay tax sa der dafay souple day nooy ba noppi dafay gën a yees te rasta da koy dindi day dindi der bu mu ndax vitamine E bi mu am la kon bu ngeen gisee per si baax si wàllu der puis vitamine E bi nekk si moom moo tax ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax boo amee problème foie feebaru fois yi res yi baax na si da ngay jël benn poignée per nga haché ko def ko infusion di ko naan parallèlement aussi nga wut doom yi diw doom euh, per am na jiw grain yi boo ko amee da ngay wut lu tolloog euh, sa loxo ba mu fees nga wal ko ba nekk sunguf saa yoo lekk da tibb genn wàll ko du ndaw des boo ko def daf lay dimbali Euh, ba loolu di wàllu foie bi feebar yi sa amoon mën a dañ persil ferñeent yi mu am an ak antioxydant yi tax na dafay prévenir même le cancer kon boo dee jël persil lu bari yàlla mën na dimbali ba xeetu cancer yu bëri nga mucc rawatina cancer cancer wenn ñu bàyyi si xel baax baax a boo amee néew doole si wàllu sëy mën ngay jël persil boobaa da ngay jël sa loxo ba mu fees nga haché ko def ko si demi verre d'eau chaude bàyyi ba mu sedd nga naan ko au moins trente minutes avant ngay tëdd daf lay dimbali juste boo reeree nga mën nga ko jël daf lay dimbali ba sa sëy mën a mën a normal boo amee li ñuy wax frigidité wala perte libido nga xam ne sa yëngu sëy dafa wàññeeku day koy def infusion di ko naan moom it benn nga bu loxo ngay jël infusion ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee ba dafa lay dimbali ba vraiment loolu mën a am jam jigéen yi xam ne dañ bu ñu gis règle day metti bu ñu gis pot day metti bu ñuy gis règle dañuy jël persil di ko def infusion juste avant règle yi maanaam bu règle yi desee ñaar ñetti fan pour mu ñëw rek mën nga jël sa loxo ba mu fees nga àcc ko def ko sa ndox bu tàng segg ko di ko jël par genn wàll kaas mais da koy continuer nag ba règle yi jeex boo ndékkee boo wàññee boo rek gis règle ba mu jeex doo am benn problème kon loolu lu mat a lu mat bàyyi xel la donc ñii fi ñuy mujjee mooy ñi nga xam ne dañuy waaja feral seen doom booy nàmpal bay waaja a feral boo bëggee meew mi arrêté boo feralee meew du ko day génn dee jël persi ko jël si moment boobu dafay tax sa meew mën a mën a arrêté loolu lu mat a bàyyi xel la xale yi am saan it mën nañu ko defal infusion ñu koy naan ba li ñuy tëdd dafay génn ay saan aussi ñi am dessèchement de l'œil aussi ñi seen bët di wow amuñu ndoxu bët bu bëri bu ñu dee jël perte bi dafay indiwaat xam dañ ko dañ ko manqué woon day faj ostéoporose mooy ñi seen yax yi commencé yi ba noppi dafa baax si wàllu intoxication boo lekkoon laax daf la sonal da nga am intoxication nga muy mettre si biir daw si biir yooyu boo dee jël perte di ko jël dafa lay dimbali ba loolu loolu dañ question yi ku njëkki def ne daal lan ñaan wala tektal wala secret lañ ko ma jox boo xamante dafay baax si feebar koo xam dafa feebar ba dal li ñaan maladie grave ba nit ñi dute ci mbiram naan ndax dina génn ci feebar du ci génn koku da ngay jàng da ngay tek ndox nga jàng si juróom-ñaari fatia ñaari kursi juróom-ñaari ikhlas juróom-ñaari falah nasib. ñaari nasi bo pare nga nodd su ko euf ndox bi jox ko mu naan diwul si kàttanu yàlla bu dee daal du lu ko nar yóbbu dana jóg inshallah rabbi ñaareelu question bi ci dafay laaj kiis pour xale kiis moom dañ lay tegtal lu gaaw rek mooy 786 basmala bisimilah rahmaani rahim boo ko defee 786 fois mooy juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fois juróom-benn nga ëf ko ndox di ko jox xale mu koy jël suba teel mu si jël ñetti ko saa yu xëyee ba muy weer si kàttu ñaar dafay neexal xalu xale ñu leen tàggu fii leen jox naan seen émission jërëjëf.